gan gi na Keita moo jiite association policier à la retraite di brigadier chef gardien de la paix à la retraite également ñu ngi lay nuyu euh, sëñ bi Keita am mbégte dalal ci matinalu réew Rewmi FM maa ngi lay fay soxna si di am mbégte di vraiment ci invitation bi. Mhm, jërëjëf alors li ñuy waxtaanee tey mooy mbiram policier yu Kébémer notamment mm. ñu daal di leen euh, suspendre ginnaaw bi euh, ministre euh, Mansour Faye xëy na ne gisee lu awul yoon ci yoonu Kébémer bi ba tax mu yeggee ko kilifa yi ko war a jot ñooña jël dogalu ak policier yooya ci seen wàllu liggéey yow nga jiite association policier à la retraite yu Sénégal yëkkati yëkkati euh, say tànk dem ba Kébémer euh, ba nga demee it nga waxtaan ak ñoom ana tey lan dañu mën a jàpp ne moo xew dëgg-dëgg ci mbir moomu. waa jërëjëf soxna si maa ngi lay gërëm bu baax ci invitation euh, pour ñu mën a leeral askan wi li xew Kébémer man nag lu ma métti boo defee fanweeri at ak nekk alkaati ba retraité nga dégg lu mel noonu dana la métti trop maa dugg nag ma ni man du ma yem ci rek li Mansour Faye wax ci journal laas damay dem dëggu ji leen ba xam lan moo xew jël sama oto def ci sama carburant taxaw moom te partenaire am lu mu wax ci français ne li may dem dama taxaw ci poste contrôle ma fekk rek commencé euh, Thiès ba Tivaouane fépp gendarme comme alkaati saa yu ma ñëwee dana laaj waa lu xew lan la ñu ne ma ñu daal dañu am lu ñu métti parce que chauffeur bu ñu ci arrêté nu ñuy kokkali naan li Mansour Faye daal lu baax la gis nga Kébémer kenn naw fa kenn amee duwul lu leen neex la ñuy def loolu mu doy waar bi ma yeggee Kébémer euh, ma yegg commissaire bi ki fa jiite dafa nekk commissaire adjoint bi moom mu recevoir commissaire euh, commandant de corps urbain bi euh, en même temps waaw moom moom ñoom ñoom ñoom ñoom moom ñoom recevoir ñoom ma recevoir rek ak euh, brigade chef bi nga xam ni moom moo ne woon ci filtration bi ak xale bu alkaati bi mu àndal. Mm-hmm. ma laaj na nag ñun dañoo am lu ñu métti c'est police Sénégal yëpp retraité yëpp ñu ngi métti lu waxi Mansour Faye ji ndax loolu la demee commissaire adjoint bi commandant. Euh, brigadier chef euh, Sissoko ak euh, l'agent de police Diallo ñëpp wax nañ ni dara amu ci li am ba am moo di ñoom fa ñu taxawoon sécurité lañ doon def ci wetu commissariat bi la ah, waa compagnie sucrière juróomi oto ñoo jiitee di ñëw bi ñëwee bu oto commissariat fekk ñooñu monte xam nañ Sissoko ñu ralentir tuuti di ko tàllal loxo di ko nuyu parce que dafa am loo xam ne dañ ko may waa compagnie sucrière waa yi. Hmm. parce que ñoom dañ fay jaar di yóbbu suukar te bëgguñu vraiment mooy jàng mooy am gàllankoor wala moo tax ñu leen bàyyi ñu dem kenn du leen contrôlé. Hmm. ah oto bu 4x4 bi dafa jëkk rek débordé génn ci ligne continue bi bi mu ko defee brigade chef bi sib ko mu taxaw na ko yow de la tracasserie yi ngeen yi ngeen dem di arrêté mun noo arrêté mun benn camion dañu ñëwee di jàll yow li ngay def tegoo ko fenn ANSEPER bi mu ne ko joxuma la dara Jooro a la joxul Ndiaye kan mu ne waxuma la maay kan mu ne ko dans ces conditions demal agent de poste bi nekkoon ci wetam moo ñëw na ko waaw yow yaay kan ba ñu lay laaj sa permis nga bañ ñu lay laaj yaay kan ngay bañ mu ne yow su yoon newu ci waxumaa yow gaari oto dem ci ba mu demee chef de poste bi ne ko numéro commissaire bi man maay diw doog a hmm. laa bëgg a xam maay diw mu ko man de xamul numéro commissaire bi commandant bi daal mën naa la ko wol ci la bi brigade chef bi Sissoko moo ko fekk ci boobu na ko euh, numéro commissaire jiw la tudd numéro bi temps la moo ko jox mu dugg commandant commandant corps ñu waxtaan par des policiers parce qu'il a commis infraction euh, commettre benn infraction nga ni du ma la jox permis kenn du ma contrôler ba ci mujj gi ñu xam ne yow yaay diw di ministre Mansour Faye mais loolu doy waar la lu doy waar la ñàkkal fayda une institution bi nga xam ne ñoo fi taxawal président de la République taxawal fi ñëpp parce que soi-disant yow ministre nga euh, goro njiitu réew mi nga la waaye waaye na xoolaat boppam la mu am la mu wax daara amu ci dara amu ci bu fekkee dafa bëgg a neexal transporteur yi parce que dafa wax ni yéen a ngi sonal transporteur yi yéen a ngi sonal oto yi tracasserie yi dul jeex ba nga xam ni dañu bëgg a dem grève le premier le deuxième deux décembre bu fekkee loolu la tax tax xamul nu koy fajee xamul nu mu koy defee na def leneen waaye alkaati gendarme yi def ñu dara dara mm-hmm. moom li wa li wa may ma tudd li waroon di xeexam mooy tey ji Sénégal rek dëkk boo xam ne camions yi fi daw yëpp di si la plupart ay quarante cinq ans cinquante ans d'âge te soo leen continué ñu am visite technique ñooy commettre accident yi mooy ñooy ñooy ñooy pan ci àll bi ci yi dal seen kaw loolu la wara a fexe ba mu jóge fi waaye war wax yow transport en commun yi car rapide Ndiaga Ndiaye ñu ngi fi na wax ba ñu jóge fi moo gën wax ji muy wax amul solo maa ngi wax encore une fois de plus que ni euh, Mansour Faye tooñ nañu na sunu koor te vraiment vraiment vraiment ñu ngi koy méttitlu te luñ ko ci loolu. Mhm. waaw waa léegi policiers yooyu. Euh, ci ban euh, mbir lañu sukkandiku ba aj leen ndax dañoo leen déglu wala dañoo def ab enquête wala li Mansour fay wax rek ci lañu sukkandiku ministre bi ngir daal di leen euh, tere liggéey fi mu ne. dégluwuñu kenn parce que Mansour Faye wax na ci jël jëlbeen nga ne woo naa ministre bi mënuma ko jot xam naa ba mu yeggee. ca la dem ci bureau wala mu too ko wax ko loo xam ne taxawul fenn. ñoo ñu jël décision bi ministre bi jox instruction bi certainement directeur général de la police nationale ne ko bu kenn génnati ci mbedd mi mais bu kenn génnati ci mbedd lan mooy police aar doomu aadama yi la sécurité de leur bien et leur personne. kon fi mu nekk maire policier montewul dama ne ma lay wax benn affaire na la. de jeudi ba pom fay dem benn policier montewul am na fa sept accidents corporels non constatés parce que ñoom ñu génn ci mbedd mi constaté ko ñëw nañu di dañu fekk seen oto mbëkk ko daw mais loolu mooy lan. au-delà de ça insécurité bi ñu am ñu dëkk foofu Kébémer kenn aaru leen moom ndar la jóge ndar goo ba mu jógee mooy ba muy génn ndar gis na contrôle bi taxul mu ne bàyyi leen ba mu ñëwee gis na ko fu mu jaar gis na contrôle kon boog dafa am lu mu lu mu denc loon waa Kébémer moo tax mu jóg def loolu mu def te lu yëf lu ñaaw la ñu ngi koy ñaawlu bu baax Mansour mu ñu ministre la te nga xam ne il est révocable ñun nous sommes une institution dañuy def un concours opté par conviction dem fa nekk di def liggéey bi déel ay risques di def lu ne waaye pourquoi bu ñu reyee alkaati bi pourquoi bu ñu rendee alkaati bi pourquoi bu alkaati bi nang tout récemment la ñu mbëkk benn alkaati gendarme bi newoon ci autoroute bi ñu mbëkk ko mu dee mais kenn ñaangul kenn waxul ñuy wax naan ñu protéger des transporteurs yi nga xam newuñu ci règle dañu def lu leen neex di surcharge def lu leen neex te alkaati boobu ñu wax jàllo tey ma xam xamal leen benn affaire lépp lu fa jàpp ci drogue ci assis moom moo ko jàpp ci camion la ko jàppee waa tey mu toog di wax ji ñaaw na trop li maa ngi wax Sénégal yi ne loolu mu déclaré ci journal bi daara amu ci maa ngi wax ministre de l'intérieur Euh, Antoine Ablaye Félix Diome dara amu ci di wax Bokar Seydou yàgg dara amu ci nañu nag défendre les policiers loolu mooy yoon bu leen bàyyi ci nit ñi ñu leen di bu ndaxata def leen institution bi ñu représenté mooy la la police 62 ba ñu ngi bundu xatal Senghor Abdou Diouf ba tey ñu nekk fii nag dafa war a dakk nag. Mhm. waaw léegi euh, ah, policiers yi ñoom ba kañ lañ leen aj affaire bi àpp nañ ko wala dañ leen ne rek dem leen toog. àpp ñu dara. du mise à pied nag parce que mise à pied dàq la. Hmm. dañ leen wax toog leen bu kenn dem ci mbedd mi bu kenn patrouiller bu kenn def dara. waaye ña ngay xëy di dem ca ah. commissariat ba. ña ña nga ca boobu fa fekk ñoom ñëpp ñu toog te amul demuñu fenn kenn génn kenn bougé wu loolu mooy lan kon kay nañ tëj commissariat bi. parce que li ci gën a grave mooy les gendarmes ils sont parce que fu ñu tabax commissariat les gendarmes sont incompétents ils ne peuvent plus benn liggéey. kon tey euh, waa Kébémer yëpp il sont en insécurité ñu ma koy wax ci kaw kenn aaru leen kenn toppatoo leen ngir benn doomu aadama ñu koy wax Mansour fay mooy kan du yàlla du yonent bi taxaw ne tey di wax loo xam ne taxawul ñu jàppale ko ci loolu ba téye alkaati bu leen gën mais loolu war naa dakk léegi <laughs> uh-huh. léegi policiers yooyu est-ce que am na ñu peut-être possibilité dem def recours fenn wala dem kalaame yëf yi fenn ba xëy na ñu xoolaat mbir mi ak sanction bi daan bi fu ñu koy xanaa balaa nga recours nga am droit ban recours ak fu ñu koy contesté ñun non sommes ñun rek ñooy police ci monde bi laax waxuma Afrique yëpp monde bi ñun rek nga amul syndicat parce que moo tax ñu nii attaqué dañuy wax wax ju ñaaw ju ne te mënuñu gaa wax tey man dama jël sama courage à deux mains teg mouvement bi ngir fu nu bundu xataale alkaati ma jóg wax ci na du noon tegewul noonu lii maa ko wax maa ko sañ wax ko jëkk wax jóg ci kaw parce que 62 bi Mamadou Dia amee problème ak Senghor Valdiodio Ndiaye mi nga xam ne mooy jegeñaawu Mamadou Dia di ministre de l'intérieur waa euh, député yi de dañuy dem wote ji as euh, motion de de pour dax euh, pour pour dindi gouvernement Dia. motion de censure waaw. bo de censure Dia Valdiodio jox instruction ne bu fa benn député dugg waa buñ fo buñ fa benn dugg ñu dem def liggéey boobu parce que dañu ko sant ba tey Abdoulaye Abdoulaye am Mouhamed Boun Abdoulaye kii le ministre de l'intérieur actuellement bu joxoon instruction dañ koy waaw dañ koy appliquer waaw kon jox na ko ñu appliquer ko en 62. waaw Lamine Gueye jël député yooyu yóbbu leen ci këram boulevard de la république foofu maison des avocats nekk foofu la ko wootee. bi bi Senghor amee le dessus mu ne waa alkaati yi dañu may xeex mu changé statut bi nga xam dafa joxoon tous les droits ak syndicat def indi ko en soixante pour que Ousmane Camara moo def statut boobu ñu militariser ñu ful ko wér. ful ko wér ñun nous sommes un corps civil duñu corps militaire militaire civil mooy milice armée ak gendarmerie waaw kon nañ jox suñu tey nag ñun duñu bàyyi kenn mu ñuy bundu xatal fu ñu ko déggee man de Cheikh Ma Keita laa fu ma ko déggee te loolu yoon couvrir lu bu doxul ci yoon waaye parce que ñu ngi accusé boo tey ñu ne tey tracasserie ñu dañuy nekk di mbuxum mais nga fi ministre ngay nommé deux ans mu tabax benn villa Almadies à milliards am ay milliards yu dul jeex fu ko jëlee nañ ko wax ba pare ñu on fait des conventions conventions yooyu ndax di ñu koy versé ci euh, trésor public mais douane am na treizième mois inspe impôt impôt domaine li ñuy taxe yi dañ ci am pourquoi on ne reverse pas. des kon yéen dara ci euh, euh, contravention yi ngeen di. amuñu dara du police du gendarmerie fu ñu ko wéer parce que mooy amuñu day amuñu bàyyi loolu dafa dakk nag Macky ku baax la je vais te parce que moom xam na luy police te jox nañu cër moom ministre de l'intérieur tey jii bu changé xar xar xar mu alkaati bu changé moom la parce que tenue bu yi moo ko indi ay kaki leen doon sol. ba mu nekkee ministre de l'intérieur yi na xool ci gorom boobu ni mu fonkee alkaati ak ni mu leen bëggee ta mu bàyyi li muy def nit dongal du dara ministre bi nga mu nekk noonu na toppatoo yenn te ñu banu alkaati yi dana def seen liggéey par la force mu neex ko neexu ko dana def contrôle bi parce que mooy sunu liggéey loolu dañ ko def bu soobee yàlla ñu xamal loolu Mansour Faye mhm. waaw léegi yow nee nga yow yaa sañ a wax te yow yaa ko mën est-ce que am na peut-être foo bëgg itam dem kalaame mbir mi wala dox ci ay tànk yu weesu xëy na dem xooli Kébémer lu xew waxtaan ak sa ñun policiers ma nar a def moo di su ma jógee fii. Mm. ma dem naa Kébémer wax naa la may wax. maa koy wax aussi sa rajo. Mhm. waaw parce que tey may wax ni ma xaal dina jox jaajëfal parce que yéen rek yéen rajo. rajo bu sañee jóg woo ma wax ak man te dégg nañ ko xam nañ ma du télévision du rajo. Hmm. kon boog ñoom dafa am fu du féete man toppatoo ma lool naa wax li may wax di mu fa jógee naa jël bataaxal bind ko léegi su ma jógee yow dend ko dinaa ko yóbbu au bureau la présidence informer le président ci li ñu ci lu bëri bu ñuy def loo koy def te président dafay jël mesure. jógoon nañ fi jël benn mesure quand monsieur grand bëggoon ko delloo soldats yi pour ñu def ko kii man ma bind ñu teg ko ci suuf ak yu bëree bëree bëri donc tey jii tey. ñun li ñuy wax ni dañ ko xeex dañ ko xeex ba mu mat ñun manqué wuñu de respect kenn bu ñu tooñee te dewuñ yoon nañu teg ci yoon. da ngaa da ngaa ah? hmm? ragal yeneen sanction tegu ci kaw policier yi ni mu demee woon 87. waaw mais ban policier ñaar lañu brigade chef si soxo janvier lay retraité. Hmm. ñaari weer ko dese moom luñ ko mënal xanaa le jeune policier te policier boo deful dara parce que arrêté wu ko si soxo moo ko arrêté moom tontu bi Mansour Faye tontu la waaxu dem na ko yow yaay kan ba ñu lay wax jox pees nga bañ. mu ne ko yow faale wu ma la waaw ministre ministre bu nekk à la hauteur dina wax yooyu wax yooyu wax yu tuuti yooyu ba pare dem di woote parce que tiitaange moo taxoon dafa yaakaaroon ne peut-être dañ koy dénoncer moo tax mu dem booyu journal journal boobu mu defee tontu bi nag foofu mu ko waxee foofu laa demee wootee waxaat ko ne la mu wax dara newu ci parce que man maa dem yow ma ci alkaati damaa génn ci mbedd mi doxtu laaj nit ñi ñu wax ma informé na li mu wax daara newu ci mais lan la oto dañ koy contrôlé daan jël oto di ko contrôlé odu di ko teg ci digg tali bi xanaa kon la vie du policier est en danger wala gendarme parce que bu boobaa da ngay restreindre la circulation te oto mën na la dal mais na bàyyi lu mu wax ñun xam nañ suñu métier dañ koy def loolu c'est clair net et précis donc loolu la ñuy wax Mansour Faye na nekkaat devenir à la raison du parce que dem goro goro njiitu réew mi laa sama sama rakk mooy see njiitu réew mi que lu ma neex def c'est un citoyen sénégalais aussi c'est un lambda tout court mmh. jërëjëf jërëjëf monsieur Keita waxtu bi moo ñu dab ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey